mais monsieur ma wax yaa ma wax ni ma. non non mais mais monsieur le aujourd'hui beaucoup de communes parce que moi je l'ai vécu il y une grève qui ne dit pas son dans le secteur des collectivités territoriales pendant très longtemps euh, dix-huitième plan d'action di grève ay une semaine du mairie duñu liggéey mais les mais loolu quand même loolu ba kañ. amul grève. Ah mais euh, am nañu ay. Euh, exprimer nañu kon yokk ngeen. exprimer exprimer nañu yokk ngeen salaire foofu. attends ma ma ñëw exprimer nañu. Mm-hmm. seen i doléance man leen dinaa ko examiner. Mm-hmm. parce que am na doléance yoo xam ne man comprendre ma ko man maire. Mm-hmm. par ah. exemple parce que aussi xam nga par exemple. ñu fay ni ma da nga leen di yokkal salaire. parce que tam. parce que dans le code il est dit bu ñu yokkee salaire fonctionnaire yi. dañoo war a yokk salaire yu agent waaw mais mon cher ami man man ma leen di fay. le code xam nga xam nga le code des collectivités locales moo la tënk. waaw te si code bi lañ bind loolu. xam nga yow wax collectivité mais dama lay wax rek ne la pour les pour pour les augmentations de salaire la. dafa wër àdduna wër na réew mi Sénégal ci secteur yu bëri nag. waaw am na ku ma wax. les 8 pour cent du président là indi fi ay problèmes yu bëri. waaw waaw xam nga. li ma bëgg a wax mooy commune yi waxuma commune bu ko mën a fay nag fay ko baax na parce que liggéeykat yi ñoo ñoo def résultat yi mu yor. effectivement mais ku ko mënul ñu bari mënuñu ko nag. am na communes yoo xam ni ils parviennent à à peine à tirer les diables par la queue. bien sûr et ci recette de fonctionnement yi ci ngay fay say salaire mm-hmm. te recette de fonctionnement yi communes yëpp bu ñuy départ zéro. ñëpp fonds de dotation la ñuy xaar fonds de dotation fonds de péréquation minière bi nga xam ni tag na maa ngi wax ministre bi aussi mu bàyyi ci xel parce que gars yi nga koy xaar léegi su dee xaar fonds de dotation nga war cee jàppale éducation nga war cee jàppale santé. Mm. éclairage nga war cee non éclairage public sax léegi xam nga depuis Ablaye Wade c'est c'est c'est grave mais nga war cee jàppale jàppale. am nañ ñoo xam ne sax ci li ñuy fay seen i yi personnel <coughs> mais yow léegi liggéey bi nga war a def yow xaalis boobu est-ce que fan lay jóge am na ñoo xam nag am nañu ay ay ay ay ay redevance mm-hmm. minière ay redevance industrielle ñooñu nag mois je leur conseille. bu ñu ko mënee ñu fay vraiment. employé ñu yokkal yow moom mën a ko man man mën a guma ko wax naa lu carrément. waaw comme gu ma euh, parce que xam nga bu ñu koy jël itam comprendre ma man dama leen nag su ngeen góor góorloo ba samay recette augmenté ba mu mën a couvrir seen 8 pour cent yi ma fay leen. ah bon donc góorgóorlu leen. d' accord nañ ci. gentleman agreement ñoo koy liggéey quoi. ñoo non ñëpp ñooy liggéey mais man su ma xëyee man damay toog liggéey man man sama benn liggéey laa musuma émarger fenn musuma am benn nomination ni aucun poste man maire laay xëy liggéey ba ngoon man leen li may def dañuy jiital d'abord suñu réew mais suñu réew pour mu jiitu il faut commune bu nekk defar bu ñu defaree suñu commune keneen defar suñu réew avancé léegi nag li ngeen war a yor moo tax ma ne sama collègue yi nga xam ni am nañu ay redevance industrielle ou minière am ay un milliard deux milliards mm-hmm. nanu leen fey parce que loolu lu baax la parce que il faut motiver mm. les ouvriers te